umpaañ dañaa retenir. waaye kan ngay noppi. umpaañ sa dentition looy. bu ñu kat kii waa yow te gaa dafa gaaw. umpaañ ñu saa retenir retenir. waaw. ah umpaañ wax nga sa secret wax nga sa secret. Mm-hmm. xanaa nekkoon ci ay loxo yu bon rek. waaw. yow jigéen a tax ngay bàyyanteeg sa xarit sa doomu day waaye nag baax na. umpaañ da nga am copain. waaw ah yow tamit. waa ñu soo mel copain da ñuy woo. ndax yow fóonante yu yàgg yi nga xam. yu yàgg yi nga xam ko. yooyu eh, eh, xam laa bëgg xam man man bu ma fen borom. xamul ma lay bëgg a yëgal nga génn ci samay dis lu ma neex laay def. ndeysaan maa ma ma wax ci tuuti rek boo ma ko permettre euh, dafa gudd tànk. xamu ah, loolu de rafet na. Kaaw dafa may tàkk. waaye nan la. dara. Ameth sama xarit la. li fi jotoon jaar weesu na dañ ko fàtte nekk ci leneen bàyyi leen ku nekk ci jàmmam ngeen di ko perturber ngeen di ko sonal di ko kar ci mbedd ngëyeen yi fu nekkar nga ma fa yaay booy. loolu yàlla loolu euh, yàlla neen la du dëkk. Euh, suñu umpaañ nag ex ah, hmm? dañ koy takk de. a dem marché nag pour sa benn valise bu ndaw def ci say dara say parfum say cuuraay préparé jox ko mer ndax kaaw da koy takk. waaw suñu nga indi sa kanam innocent bi maa tey kon. su ma